Diomaye dafa baax sax. mooy loolu de doy doy na ma trop. alors man <laughs> waay laa koy def nga naan waay waay man moom bu ma laa laajoon suuf si fii. <laughs> naan la dem oh. baay ñaax. <laughs> yow bëgg nga de. loolu moom yow xaaral yow nee nga da ngay def campagne yow man man si yow laay campagne. alors moom moom euh, dernier point bi ñuy bi nuy waxtaanee mooy euh, ki nga xam ni moo di Ousmane Sarr. nu gën ko xam ci. Euh, nitu dëkk voilà euh, ginnaaw démb Abdou Karim xurum xaak mu defee li nga xam nag moo di conférence de presse euh, naka noonu aussi kii di Ousmane Sarr daal di bind ab lettre de démission di nu wax ni carrément boobale mouvement moom moom tekki na ci li nga xam ne nag moo di ndombal tànkam moom mu bokk si ñi nga xam tey jii ñoo fondé boobale mouvement. waxal waxal waxal Mor Gueye mu message si numéro bu 313 bi. exactement Mor Gueye numéro. mi ngi noonu 227 12 12. comme ni nga ko gisee boo ci messager rek di nga am. numéro jëwriñ bi ah. waaw 77 227 12 12. exactement mën nga mën nga mën nga contacter waa régie dinañ la jël suuf alors moom nan nga mën jàngatee acte bi nga xam ni moom Ousmane Sarr euh, jël na ko li ñu xamal ni carrément euh, désormais tekki na ndombal tànkam. fële ca c'est très dommage euh, nitu dëgg. c'est très dommage c'est-à-dire c'est des gens yoo xam ne dañoo ànd ak Karim. Uh-huh. mais Karim depuis quelque temps doo ko xamee doo ko sax reconnaître. Uh-huh. ki mu nekk yëmbal noor la nekk. <laughs> gis nga si laa uh-huh. man nit man Karim laa mënatul comprendre en fait. Uh -huh. yoo xam ne ñëpp respecté wu respecté nañ ko Sénégal. Uh -huh. c' est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour sénégalais yi. Uh -huh. mais sénégalais yàgg ko taxawu ci xeex boobu mu doon xeex pour le Sénégal. Uh-huh. donc gis nañ tey des yoo xam ne yàgg nañ ñu ñu jaay leen doole tëj leen ci kaso yi. ñuy uh-huh. xeex pour un changement am. nga dem ba à la tête du pays nga am ñoo xamante ne tey changement boobu lañ bëgg apporter. nga bëgg pour des problèmes de détails yu sew di sànni ay baat. Uh-huh. man su ma gisee Karim muy wax ci l'actuel ministre de la justice. Uh-huh. muy wax si le ministre de l'intérieur aussi man j'ai un problème. Uh-huh. mais c'est la première fois en tout cas man ci li ma fekkee ñu ne Sénégal. kuy ministre de l'intérieur ñu dem jël benn kenn benn waay boo xam ne c'est un ex général. ñëw ne ko kaay yaa war a doxal loolu. kan muy ministre de la justice ñu ne génnewul ci biir parti politique nit la boo xam ne dañ koo fekk fee. ne ko kaay nekk ministre de la justice parce que lu mu jot a wane ci ay preuve am ci justice. waaw mais sëñ bi loolu nag wax dëgg fa yàlla soo ko rafetluwul bul ñaawlu loolu. mais yow ñëw nga nee nga da nga bëgg a dem <laughs> élection def cagnotte. te comme delloo xaalis bi xaaral ma xool sama bi ndax ñëw na sax su dee day delloo xaalis moom na ma doo na ko delloo soxla naa ko. yow. su dee day ñëwagul ba léegi. ñëwagul su dee day delloo nee euh, <laughs> na def cagnotte. nga def cagnotte. xaalis bi bëriwul. xaalis bi bëriwul li mu jot ci cagnotte. xale yi dugg fa ñoom tamit ñoom tamit ñoo gën a doy dugg fa. ñii di ko envoyé ay un franc ñii di ko envoyé ay cinq franc. surtout xale yu Sonko yi. ñooñu moom il faut il faut que Sonko wax ak ñoom booy booy danoo xaw. sabote <laughs> sabote ñoom bu ñu ko defoon ay cent franc cent franc ñi dugg ñëpp bu ñu ko defoon cent franc cent franc heure bi day mat. non day day day déposé question il est allé dem ci le xalif général <laughs> des mourides <laughs> ngir sàkku foofu. Euh, am koppar gu mu mën a yóbbu ci ci caution xëy na bëggul nga nekk candidat ça n'a pas marché mais nag loolu du raison pour que ngay ñëw di acharné wu ci kaw ki nga xam ne ni moom moo di le ministre de de de l'intérieur. wala ah. le ministre de la justice man jàpp naa ne wax dëgg yàlla loolu moom tegul ci yoon et nit ngay xeex li ngay xeex tey la xeex bi gën a ne fii. Ah. mooy est-ce que xam nga ne ñi léegi ñu ngi xeex pour saxal justice ci biir réew mi. exactement mais parfois sooy déglu Karim dama xamul ndax dafa comprendre ah. wala xaw man je me tout le temps ci wax yi nga xam ne ni moom lay wax. Uh-huh. dal ci kaw ñëpp il tire sur tout ce qui bouge. yow da yàgg xeex ay nit di xeex comme yow contre Macky Sall ci liñ fi tegoon. Uh-huh. ñi ñëw bees mais xanaa nag ay na yoon defaguñ fi lu tax nag nga war leen a weddi mais falu nañ ci saa si nga ne non ñii ñoom fi ñu tegu baaxul quoi dañu nekk di def la même chose lii warut non c'est très dommage quoi. Uh-huh. donc euh, moom Ousmane Sarr. boo ànd ak nit nga dem ba xam ne kii kat boo ko tooleen discours bi ngeen tenir mhm. boo ko tooleen fi ngeen jëm da jël sa yoonu bopp bàyyi ko te mhm. jàpp naa ne moom décision boobu la jël euh, Ousmane Sarr nga xam ne moom it defe naa moom moom mujjee <laughs> génn kaso mhm. moom moom ñu nekkoon kaso moo si gën ñàkk chance moom mujjee génn génn na donc moom si dernier moment yi euh, ci la ci la ci la génn ñoom ñëpp ñu xeex pour Sénégal mais tey Ousmane Sarr boobu xeex pour Sénégal principe la gëm àndul ak Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye si lu ko neex mais bi nga observé fexe ba accompagner ce régime là ba li ñu waroon def deme bëgg dem ñu def ko. Mhm. mais sëñ bi yow xeex rek xeex rek. boo demee ba yow ñiiñ fal sax ñu ngi góorgóorlu pour yow li nga bëggoon démb ak bërki démb. Mhm. yow démb ak bërki démb lan nga amoon ministre de la justice boo xam ne day def du n'importe quoi. Mhm. ministre de l'intérieur boo xam ne day far bokk ci parti bi. cette fois-ci on a des élections yoo xam ne le ministre. de l'intérieur n'est pas cette fois si on a un ministre de la justice qui dit devant le premier ministre uh-huh. que amul kenn ku may wax lan laa war a def ci justice uh-huh. ci kanamu ministre kenn du ma dite lu may def loolu seen une rupture au Sénégal uh-huh. sëñ bi loolu boo ko rafetluwul bu génn naan ay ministre bi nangam wala diw nangam ak nangam. Mhm. donc loolu rek lu mën a def mooy nikki ki ànd ngeen yéen bokkoon li ngeen gëm dem nga ba muy tenir des propos yoo xam ne àndoo si gëmoo li muy wax. Mhm. da ngay jël sa ay responsabilité génn ci euh, kuréel googu nga xam ne moom ngeen bokkoon. mais qu'est-ce qui a changé entre temps la moo tax euh, xurum xaq xaw. moom a jaaxal di di di yëkkati ay moo jëmale ko rek ci nguur gi fi nekk. mais man Karim man Karim Xrum dafa yàgg a toog di wax may dégg muy wax ne Ousmane Sonko ni mu mel muy wax ci Ousmane Sonko. di tàgg uh-huh. Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko boobu changé wul si diggante bi moo fi nekk ba tey. Uh-huh. mais pourquoi nga war a am xam nga pour man yenn gars yi ils ont problème mooy yow da jàpp ne man comme maa ngi doon dal ñee rek su ma ñëwee dalu ma ñii rek day mel ni uh-huh. man dama dama changé position alors que c'est pas ça. affaire bi xam a lan Ousmane Sonko su defee lu yoon ne lii mooy yoon. Uh-huh. même bu doon répété wu cent fois ne nangul ne lii mu def mooy yoon. Uh-huh. bu subaa su jumee nga ne ko juum nga. Uh-huh. mais nag juste que le euh, fait que à chaque fois ngay d'accord si li muy def peut-être si seen xalaat ñoom ils se diront bon su may def lu mu def rek ma ne noon la les gens se diront ah diw kat léegi euh, nekkatul si principe lu gars yi def rek mu d'accord si te li mu doon xeex démb la mais dama gëm ne affaire bi principe la. mooy nit ki situation di am dix situation yëpp moo am dëgg dix situation yëpp nangul ne moo am dëgg mhm. léegi l'erreur qu'on fait parfois c'est de dire que bu dix situation amee na nga fexe ba cinq situation yi nga ne moo am dëgg yeneen cinq situation même su amee dëgg neel amul dëgg pour ba fexe gérer benn équilibre pour que ñu ne ah moom kat faralul kenn dëgg rek moo ko tax a jóg mhm. piège boobu moo sonal ñëpp nit su amee dëgg neel moo am dëgg mhm. bu subaa bu juumee nga ne moo juum léegi nag nit ki mën nga ko topp at juumul del ko neex mais loolu moo am jusqu'à preuve du contraire. exactement alors euh, mi ngi noonu moom moo euh, nu bàyyi xel li xew fële ca ca conseil constitutionnel jusqu'à présent. oui euh, verdict bi wàccugul du ñàkk si kanam tuuti rek dinañ si dikkaat bu fekkee recours bi waa takku wàllu dugaloon jox nañ ko daal di invalidé wala lu si mënti am dinañ si dikkaat bu baax a baax moom moom maa ngi lay jaajëfal cant ak ngërëm ñeel na la. waaw maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Mhm. pour fois société civile bi benn problème lañ am. Mhm. <laughs> mooy xam nga <laughs> gars yi dafa am sëriñ bu bu toogoon ci jotaay bi quoi. Mhm. mu toog ba si yàgg mu ne mu ne mu ne ñi nekkoon si jotaay bi ñëw leen ma ñaanal leen ku bëgg sa mbir dox rek. Mhm. sa liggéey dox ñëwal ma ñaanal la. mais bi mu ne kaay ku bëgg sa mbir dox kaay ma ñaanal la rek. am euh, waa joo xam ne menuisier la. mais moom keesu néew lay defar. nga ni ma lan. <laughs> waa ji dafa avancé gars yi ñoddi ko ne ko sa ginnaaw demal toogi fi ñaan gi. <laughs> mais société civile. Uh-huh. ñoom lii seen liggéey yàlla bu ñu am liggéey au Sénégal. Uh-huh. mooy ñoom seen liggéey mooy ñu am ay dictateur muy teg si ñun lu dul yoon ñoom ñu mun taxaw di défendre loolu. Uh-huh. léegi ñoom bu ñu toogee une certaine société civile en tout cas suñ toogee injustice amul te ñoom injustice la xeex léegi yow looy def da ngeen tëdd nelaw. doo dem toog il faut nga liggéey. mooy il faut nga génn di wut loo wax moo wax mooy parfois nga gis ñuy am yenn position yoo xam doo leen mën a comprendre c'est comme defarkatu ñaan liggéeyam dox bu seen liggéey dox société civile yàlla bu am dictature au Sénégal yàlla bu kenn euh, salfaañe àq ak yelleefu ay doomu aadama au Sénégal te loolu bu amee day dem ba benn instant société civile dootul am sa raison d'être au Sénégal. parce que mhm. réew bu nee xocc jub. Mhm. jubal jubanti après la mooy nekk rôle société civile bravo. président bravo président bravo président. Mhm. foofu lañ nar a wu moo tax parfois dañuy sonn ci bravo bi il faut ñu sànni xeer il faut ngeen comprendre leen. Eh, jërëjëf Momo jaajëfal naa la bu baax a baax Gora Diédhiou nee nga niil ko waa Thierno Ndiaye. waaw Thierno Ndiaye waaw waaw mhm. waaw waaw Thierno Ndiaye waaw. madame Ciss yow yow xam nga Thierno Ndiaye kii moom a gën a xam Thierno Ndiaye. maa la ko gën a jege aussi. waaw <laughs> non léegi moom naa sori yow. maa la ko gënoon a jege. waaw léegi moom eh, madame Ciss eh, ñu ngi lay jaajëfal.